أمضيت مكافي تكويني في عدم المزار وجهك يا قادر يا حمديت مكافي تكويني في عدم المزار وجهك يا قادر يا المزار وجهك يا قادر يا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 bokki jullit yi gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent yàlla muhammad ñi ngi wax alhamdulillah ci rabbil alamin ci sant gi nga xam ne moom na sunu borom wax ne bu ñu ko santee mu dolli ñu kon ñun ñëpp nañ bokk wax alhamdulillahi rabbil alamin ndax kat lii yàlla def na defoon nañ ko fii daaw ci mbaaxu yàlla ak yërmande yàlla mu may ñu ba ñu teewaat fi nañu teewee oon daaw kon nañu wax alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan yàlla mu may ñu ñu teeweewaat ko déwén te bu kenn manki yaare bi gannaaw loolu di wax gan ñi bis bi agsi na vingt-cinq décembre bokk yépp nag ñëw nañ dëkkandoor yépp ñëw nañ sopp yépp ñëw nañ ci barab bii ak bis bii pour gàmmu kokki gii alaaji muudu saaxoo mu ngi nii toog moom mi war a gi alaaji samsu saaxoo mu ngi nii toog moom mi war firi gàmmu gi magam xaritam sopem alaaji abdourahman saxo mu ngi ni tok ci wetam alaaji mohammed Yaasin Dramé keur sahet mu ngi ni tok ñëw na ci gàmmo gi serigne dam Dramé yawaqit mu ngi ni tok ñëw na ci gàmmo gi alaaji Omar saxo mi nga xamne mo yor presentation gàmmo gi mu ngi ni tok ñi ngi ànd ak mboolem seeni woykat kon ñi ngi wax dëkk bi gan ñi ngeen doon séentu ñëw nañ yéen ñi nga xam ne nag yéen a des ci biir néeg yi ñu fexe ñëw daje fii ci tànt bi màggal guddi gii di guddi rasulullaay nga xam ne lu rëy la fii ci kokki saalum waaye fierté la it fii ci ñun doomi kokki saalum ndax sunu maam yi nga xam ne ñoo sancoon dëkk bi ku leen fëggoon tey wax leen ne kokki saalum ñu ngi fay tant tant rasulullaay di ko fa gàmmo chaque année loolu dina sedd seen xol lool kon lool wax dëgg yàlla ñun ñii des fi fierté la ci ñun waaye yéen ñi nga xam ne yéen a fi teew ci ñi ñu gisagum ndax présentation yombut te booy présenté ñi nga gis rek nga mën a présenté waaye léeg-léeg ñu ne présenté woo diw présenté woo diw fekk diw moomu ñu bëgg laay présenté loolu nit mënul présenté comme gisul waaye incha allah ku fi agsi rek ci gan ñi ñu war a ñun ñi nga xam ne ñoo woote suñ bis bii képp ku fi ñëw ba xale bi gën a tuuti buñ saloon bu sañoon boo ñibbi sa xol bi sedd guy waaye yéen ñi ñëw nag na ngeen xam ne bis bii ñun emalewuñ kook benn bis te bëgg nañ ñi ñëw ci dëkk bii seeni nopp na fees dell te yéen ñii lañ ci yaakaar ñun nag bu ñu ootee ba ngeen ñëw sañatuñuy jël micro di wax walla ñiy woy waaye dañu toog jox leen ngeen woy alaaji muur yaa ngi koy dégg Mouhamadou Nassirou Sakho moom it ci liñ ma wax ñëw na ci dëkk bi te moom it ci woykat yi ci la bokk sëriñ Seex Ahmad Tijaan Ndaw wax nañ ma ne ñëw na fi moomit it sëriñ ah? Seex Ahmad Tijaan Ndaw ibnu Mawlana di Alaaji Taayiru Ndaw wax nañu ne ñëw na fii ci barab kon na guddik tey gii dafa war a daw mi ngeen bàyyi ci xel faarox ak yéen ñii di ma déglu daño wax ne ñun bu ñu agsee ci tante bi ci li ñu wax soxla wuñu kaddu yu bari ndax guddi gi daanaka bët set na te kat yi bari nañ bëgg nañ kenn ku ne ngeen mosal ko mu def la man ngeen partagé leen heure bi ndax bis bi moo leen fi dajale te ku am gan nag wax dëgg yàlla di nga bëgg xolam sedd guy mom jang kat manki wut fi ci tante bi xali yi gën a tuuti sax bo len joxe tay ñi toj tante bi waxuma la ak yeen mag ñi ñi ngi tok nak di len deglu dekk baangi ngi yaangi wacc nañ lali up nañ néeg yi di ko préparé bi gamu gi jexé ci beut set ga lañ commencé préparer bu fi ñu tok dekk bi du xali bi gën tuuti ci dekk bi kenn ku ne lu mu am def na ko ak lu mu man ak lu mu manut ngir bis bii kon ñun bis bii bis bu rëy la ci ñun képp koo xam ne nag bëgg nga lu ñu neex ci bis bii dañu bëgg nga def loo man ak loo manut pour doomi kokki seen xol yi sedd guy ñun loolu lañ bëgg dañoo bëgg ku ñëw ci bis bii nga def loo man ak loo manut loolu lañ bëgg ñun ndax bis bii bu xasee jeex déwénati rek lu ngeen man ak lu ngeen manut ñun moom lañ soxla ta xam nañ ne laajul leen lu ngeen mënut li ñu laaj xam ngeen lu ngeen koo defee xam ngeen yoor kon nag faarox foofu laay yemale kàddu yi bokk yi lu ci juum ngeen jéggal ma salaamaaleykum wa rahmatullahi wa bismillah Serigne Dramé jasaakumullaahu xayran yàlla na fa ne gudd lool ànd ak wér-gu-yaram te peesal foos yi nay nañ képp ku fi teew dikk nañ fii ne daan dikkee ci yeneen barab yi fii ci Kokki Saloum tombeek le vingt cinq ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre mooy gàmmu kokki gi ñu ngi jóge fa caaxo siir ñëw fii ci kokki dëkkoon nañ fi daaw ak daaw jéeg dikkaan nañ fi ren yàlla nañ fekkee déwén fekkee wàllaw déwén ci maqaamam alaaj Omar Ndaw radiyallaahu taala anhu sëñ Modou Sakho ngi ni toog mi ngi xam ne mooy wéy gàmmoo gi ak ñi mu ànd ak ñëpp alay sant diine mi ngi xam ne mooy firi gàmmoo gi muy nii toog alay Abdourahmane Sakho ngi nii moom it toog kon gàmmoo gi war naa mën a neex kon sëñ Modou bismillah la 14 bi passé ni ñi ngi demoon dekk bu ñu wax Fass fa lañ doon gamoyé gamo gi macha allah déglu nañ ko nak liñ bëgg nak moy gamo go def ga ca tégué na daq gi nga wala mu tollok mom lool moy alay sant nag waxtaan nañ ënna fii sërëcc ba xam doole nag sërëcc bi nag du ma leen wax lii la wala lële la bi bu ko xebbee da xam ne lii mooy sërëcc bi loolu daal lañ prévoir fii ci jàng gàmmoo gi liñ fas yéene nag xam nga équipe bi yëpp mënoo dugaloo ndoor ñëpp loolu ma mënoo ko ñëpp mënoo dugaloo ndoor ñëpp liñ bëgg daal bu Moodu commencé Moodu ay Moodu commencé ba pare su jàngee ba noppi ñi seet keneen kuñ cey teg su paree alay sam dugg ci gàmmoo gi firi su paree nag kuñ cey teg teg ci bu bët setee bu bët setee ñi xam ne yi fi foofu la yem nii daal lañ programme parce que ki nga xam ne mooy gàmmoo gàmm gi ñu bind koy leetar mu wuri fiir gàmmoo gi man ñëwuma ko yóbbu ba ca dara ñeel mini gi ma doo ko dugal dama ko ñëmewu li dal moy programme li ci djum nak ci yalla lu ci deung nak xalaatab ay ndaw kep la wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh seigne Modou bismillah majadato antal majiid wa داما مجادته بلا نهاية يا ماجد يا الله مجادنا سكايو رمان منفردا أقل مجادات يا ماجد يا الله مجادك النازع رحمن منفردا أقل مجادات يا ماجد يا الله فجادك الهبوما لو أتفاسه سفل المجاد عاليا مسمرا سايدا جدي بلا اليوخ ما جكايا ما جد يلا وممجدا لك بي نريد موتينا بها والوسفيا ماجد يقا الوصف يا رحمن يا سخاتي لك المجادات يا ماجد يا لا صلي وسلم عليه سرمدا أبادا ماجد يا مجادك يا moo safu almajood atiya maajid yalaaw joodaka la ruuwa nanaat xaati fahra safu almajood atiya maajid yalaaw majaadaka alxuduutaat loohu jamaahata ahla sahaadaat ya maajid yalaaw كان لقائدنا بعد المجد ماجد يبا واتني مجد من إبزار مرسدين هو المجدات يا ماجد يلا صلي وسلم وجبني ويكوزوي مدن أبادا ولا لما سبيا ماجد يلا سلم وسلم عليه يسرمدا أبدا ولال وزبيا ماجد يلا وادني مجد وارب معرفتي ومجده بكايا ماجد يلا مجد رار وفياد ومد قربك يا ماجد يا الله ماجد يا الله باطني خير دورين بلا قصرين في الجسم والرؤيا ماجد يا الله باطني خير لا بكرة بزوم مجد كتاب ماجد يا الله عجب دعائي أما سولين آقخو بوصف مجدك يا ماجد يا الله وات نفسك يا رحمن يوسقات قبل الخلائق يا ماجد يا الله لكنا كرم وما تهرب يا ماجد يا الله متاسفا بالجلال لا مثيل له والجس والقدس يا وايد يا الله متاسفا للجلال لا والعمي والصبر يا وايد يا الله نفتكم من أيا مسعوها نفتكم من أيو دوكن نفتكم من أيا أرغنين نفتكم من أيا دفلني واي نفتكم من أيا دوكن نفتكم من أيا باي منصور نفتكم من أيا مسعوها نفتكم وحدكم من أيا مسو وحدتك الحق يا وايد يا لا ku sopp si dara ju man daw defal nit ñi màggal ko fikaaya nafat ku mu man ayo ndaw ko ndax nafat ku mu man ayaa ndaw ku nafat ku moo man farax nee na ku moo man bay man soor ku moo man aya ñesoo wadatukal xaxuya waaye du yàlla waaw fii idaasi si بكايا نفذت أمرك في إداس سيئة من مسر وفكايا وايد يلاوى مسر وفكايا وايد يلاوى أدزرد طائرا ودنت الدم وحدة ذاتك يا وايد يا الله سمام أريت جامعا برا أريت جامعا faroxo neena arayto jamian faraxto kamilan hojo boso nikaya maydu yalla kamilan أزنت خابره وتعطى وعيد لك الهدوق يهبا وسع سمهر برويه الجسم يا وايد يا لار وقف موازين جامعا موايدا يقينا إلى الخلائق يا وايد يا لار أنا أردك يا هذا ما نتاخو فرغنين أدل ما نتاخو باي منصور أدل ما نتاخو وننتبه أدل ما نتاخو وننتبه أدل ما نتاخو وننتبه أدل ما نتاخو لو كنا أدا لما نتقو لو كنا أدا لما نتقو دفلني واي أدعلم نتاقو دو كندو أدعلم نتاقو أي منصور أدعلم نتاقو يننتبي أدعلم نتاقو سوائنين أدعلم نتاقو دو كندو أدعلم نتاقو دفلني واي أدعلم نتاقو نتاقو ترغنينا أده لما نتاقو لو كنو أده لما نتاقو باي منصور أده لما نتاقو عبد الرحمن أده لما نتاقو لودين أنا رأر ركايا وايد يلا واو ومن على رسده وأردك يا وارثنا وتقوا ونمر رزد النار أردك يا وايد يا وهدك الرسل لا فلقدوتي في حلم الجسم يا وايد يا الله لفوزي وعيدك الحياة وعدك الروان وقهت بعد أهل سماوات وايد يا لاوى من ربنا وجل بصيرتي يا شمس الدين وجل بصيرتي يا عبد الرحمن وجل بصيرتي يا سبعي وجل بصيرتي يا دفلني واي وجل بصيرتي يا لو كنا وجل بصيرتي يا yonent bi wajal basirati ya faara wajal basirati ya wajal basirati الأمواج وجل بزيرتي لو كنا وجل بزيرتي وين منصور وجل بزيرتي جفلني واي وجل بزيرتي لو كنا وجل بزيرتي كدفني وجل بزيرتي ndokunda wajal basiratu yonent bi wajal basiratu farax nee na wajal basiratu sabay yoo wajal basiratu dan بدل خلقك يا سماد يا الله لمن مبصرة بدل خلقك يا سماد يا الله وجل البصيرة يا رحمن مبصرة أفضل قلبك يا سماج يا الله وزايد يا رحمن أوجد خلقك قادرا تريد بقدرة القدوس يا قادر يا الله لو كنا وأنت توجد أسجاء وتدمها بقدرة لك يا قادر يا لاواو يا وأنت تجد يا وتدمها بخدورة لك يا قادر يا الله دخل لا يا أمضيت حكمك في توكين سيئة من مسأل وصفك يا قادر يا خلصت سيدا نورا تعملا أقل موازيخ يا قادر يا الله بلتوليا تقسم جو دكايا قادر يا الله وسلم عليه سرمدا أبدا ولا لوسبيا قادر يا مطارقا لباسا خير الخليل كثيرا أتيت به وانا تفضلا على البريات يا قادر يا الله وقدر لنا ربيعا وعارا وافيا ما القصور فاتيا قادر يا الله وقدر لنا ربك الحقيقة قادر يدينا وتات الحقيقة قادر يلا واتنا ورسل ومرتبات مقتدرا وايد Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

Yeah, yeah, yeah.

واہ دیدا করুন Oh, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ربي ما کوتا تا اتيا قرب يالا ربي ربي تا تو سنا لا نتا Amen. مخلصا في لواء يبار يلاوى نار جهنم البرد مثير صلي وسلم عليه سرمدا أبدا معمما جماع يا بار يا الله توبة تما جروا نواتنا توبة لو كنا واتنا توبة ينتبه واتنا توبة دبلني واي واتنا توبة إيمانا واتنا توبة إيمانا يقابل التوبة التواب يلا للتوب ومغفرات فاغفر لنا الذنب يا تواب يا الله علينا مطلوب يور وارا وتسكية والفتى والهبايا تواب يلاوى بدر Thank you. تربية إيمانا وتصفيات والدور والحقايا تواب يا الله وبالجماعات سيدنا وتصفيات والدور والقزميات وخل جماعتي زارا وداهياتين والميل والفراتيا تواب يلا وكل جماعتي زارا ومفسداتا والفخر يقضيا وخل جماعتي رمانا وتهيا فئتين والموت والنار يا تواب يا الله ومهم ومسجد فوات النار جماعة الروان ومغفرة والحق والسيت يا تواب يا الله ومر وماتان والحل وَالْفَوْسَيَا يا تواب يا

واتنا ربير دوغنا واتنا ربير دوغنا واتنا ربير من خير البرية يا تواب يا الله وسلم عليه يسر مدن أبدا لا تقم من أبيد مسلم وجيل وفي قافران يلا ويلا ما تتقم من فقير كافر تنتقم من ضياف مايل ويل وخوي آمنا يا الله يا الله لا تتكلم أفيه وقيل تنتقم من أدي مثقال مر ينا لا تنتقم من أدي لو كنا لا تنتقم من أدي لو كنا لا تنتقم من أدي لو كنا لا تنتقم من أدي تجيا لا تنتقم من أدي تجيا سا رحمة ماجدا يلا ويلا لا تنتقم من سليم سل وسلم لما ليس رمضان أبدا منتقما من يدا يا الله يا الله ولا لواك بواك هارنا إرادا منتقما من يدا يا الله ما من بقي لكان منتقي زائد لخر من الودينا يلاه يلاه غروب زيتا وزيتا ربنا من باب البايا وما هو وامل الهوى متميدا فراحتك يا هو الله شيء تكو يا ربي بسمبتو انا لا تكو يا ربي بسمبتو دوكنا لا تكو يا ربي بسمبتو يننت بي لا تكو يا ربي بسمبتو يننت بي لا تكو يا ربي بسمبتو sayf ndaw laata ko yaa rabibi sabay yow laata ko yaa rabibi yonent bi laata ko yaa rabbi bi def leen ni laata ko yaa rabbi bi yonent bi laata ko yaa rabbi bi Usmaan Ndaw laata ko yaa rabbi bi seen maam laata ko yaa rabbi bi Seexu Ndaw laata ko yaa rabbi bi def leen ni waay لا تكو يا ربيبي يننت لا تكو يا ربيبي ndokkono laata ko yaa rabiibi yonent bi laata ko yaa rabiibi bay Mansoor laata ko yaa rabiibi yonent bi laata ko yaa rabiibi lani waay laata ko yaa rabiibi baroo neena laata ko yaa rabiibi baroo laa لا تك يا ربيبي لو كنا لا تك يا ربيبي فارغ لا تك يا ربيبي فرخني لا تك يا ربيبي سبينو لا تك يا ربيبي يبلني

baby. sey xu ndaw laata ko yaa rabbi bi bàyyi taayir laata ko yaa rabbi bi ndaw ku naa laata ko yaa rabbi bi sey xu ndaw laata ko yaa rabbi bi ndaw ku naa laata ko yaa rabbi bi def leen ni waaye laata ko yaa rabbi bi bàyyi man soor لا تكو يا ربيبي حبوت رحمن لا تكو يا ربيبي سباي ساخو لا تكو يا ربيبي موكنا لا تكو يا ربيبي شيخنا لون يا ربيبي موكنا لا تكو يا ربيبي لا تكو يا ربيبي فرغنا لا تك يا ربيبي ذوقنا لا تك يا ربيبي فرغنا لا تك يا ربيبي باي منصور لا تك يا ربيبي سوايا لا تك يا ربيبي بينا تسونا لا تك يا ربيبي لو كنا لا ko yaa yaa rabbi bi ku def yaa rabbi bi baraxu neena yaa rabbi bi ta ko yaa rabbi bi baraxu neena yaa rabbi لو كنا لا تكو يا ربيبي باي بصير لا تكو يا ربيبي فرغنين لا تكو يا ربيبي ينتبه لا تكو يا ربيبي فرغنين لا تكو يا ربيبي مكلين لا تكو يا ربيبي باي منصور لا تنو ربيبي لو كنا لا تكو يا ربيبي زنبتو خزون فاغفر لنا الذنب يا أبو يا لا لا تكو يا ربيبي زنبتو خزون فاغفر لنا ذنبنا لا تك يا ربي به زندته لسانا فاغفر لنا ذنبنا عفو يا الله لا تك يا ربي به زندته لسانا فاغفر لنا ذنبنا عفو يا الله وصو مجد يوفى نور نور لسارا وصو مجد يوفى نور كنا نور لسارا وصو مجد يوفى نور كنا نور لسارا وصو نور كنا نور لسارا وصو Baay Mansoor noonu lu sarra wasoo ikoon min atami sanbiya aboo wayalaawa wasoo majadin yufa kikoona خالد نون أفاته وليدا ويقه نون أفاته وليدا دوكنا نون أفاته وليدا باي بزير نون حغالا وسو مجد يفاككونا من أتمي سنبيا هفو ويلا نون أفاته